Oumy est-ce que xam veux la Donc, dama ko le di mais maa est sentir si gars bi savoir di sa sa poitrine gauche. pas la peine de le dire parce que les images parlent aussi aimer c'est savoir dire c'est sans parler. loolu tax suñu ñaari jëmm yi soppante C'est xol yi bëggante ba ñu war a confiance ak infidélité ba ñu yàq suñu diggante. c'est tellement beau c'est tellement beau de trouver une femme qui t'aime sans rien Oumy est ce que xam su ma doon iPhone yaa doon sama compte iCloud. mais donne nga ko ba comment Je vais télécharger sama App Store Tu sais حياتي وكان جامل يقول